équipe nationale du Sénégal di jàkkaarloo ki nga xamante ni ñuy waa Égypte si lu nga xamante ni mooy barrage coupe du monde deux mille vingt deux ñuy amalee foofee ca Qatar ginnaaw nag bañ leen daane benn bal si dara ñun suñu gaynde dinañ jàmmaarloo waa Égypte tey jii rek si mardi gi foofe sa jëm ñaajo si stade bu bees boobee rek ñu koy woowee stade Abdoulaye Wade nekkoon fi ancien président du Sénégal waaye nag match boobee. mu nar a doon match boo xamante ni kii di Aliou Cissé di sélectionneur bu équipe nationale bu Sénégal dina changé li nga xamante ni mooy tactique bi waaye nag si classement bi équipe nationale bu Sénégal bu ñu moytulee dina jouer 4-4-2 waaye nag mu doon li nga xamante ni Aliou Cissé da ko doon faral di jouer 4 3 tey jii rek duñ ko gis match boobee nga xamante ni ñoo dox si diggante ñun ak waa Égypte. waxte kat dañoo nemmeeku si kaw ba rek nga xamante ni eh, kii di Famara jeeju rek lañ fa faroon di eh, gis waaye nag bu ñu moytulee dara match boobee si banc bi rek la koy eh, toogee ak ki nga xamante ni mooy Cheikhou Kouyaté moom itam bu ñu moytulee si banc bi rek lay nekk ndaxte Bamba Dieng ak ki nga xamante ni mooy Ismaïla Sarr ak Sadio Mané ak Bouna Sarr bu ñu moytulee rek ñoom rek ñooy nekk ñeenti attaquant yoo xamante ni ñooy nekk si kaw ngir jeexal mats boobu Youssouf Sabaly moom itam dina demaare si match boobee ndaxte bu ki nga xamante ni mooy Bouna Sarr demee si kaw euh, maanaam joué exentre droit kii di euh, Sabaly moom rek mooy ñëw si li nga xamante ni mooy euh, latéral bi kon nag équipe nationale du Sénégal ginaaw nag bañ leen daanee benn bal si dara foofee ca Égypte pour ñu dem foofee ca CAR pour ñu dem foofee ca Qatar dinañ daan ñaari bal si dara wala sax ñaari dif ñaari bal rek yoo xamante ni différence de deux buts rek lay doon mu nar doon match boo xamante ni match bu métti rek lay euh, amee Sénégal ak Égypte bu 5 heures 17 heures et demi rek lay amee foofee sa jam ñaajo mu doon euh, match boo xamante ni Aliou Cissé bu deful tactique de jeu bu doy waar rek parce que gis nañ ni ki nga xamante ni mooy euh, Égypte ak coach ba moom nag ñaari match ngi nii équipe nationale du Sénégal dugalu ko but waaye nag tey jii dafa nar ñëwaat moom sax. Euh, di euh, coach bu wala sax di sélectionneur bu Égypte nee na nag bu fekkee ni sax day am cinq pour cent de possession dina ko def taxaw di déglu équipe nationale bu Sénégal bu defee erreur rek mu jël yóbbu la moom.